Euh, ñoom nee nañ am na circulaire bu ñu bind bu wane ne élève warul dugg ak école bi ak téléphone bu tàkk ak bu bu bu bu tey yëpp. loolu je sais loolu am na. waaw non loolu je sais. loolu am na waaye ñun ñi amul ñun ñi kuñ ci kuñ ci euh, indi fii nga dëkk ci côté yi. ñun ñii ñëpp képp ku ci ñëw da ngay jógee ba Medina Baye am na ñoo xamante ne ginnaaw Medina Baye lañ jógee ñun ñëpp ñëw fii léegi yow soo ñibbi ban jakarta nga mën a woo ki la indi woon ki indi woon

en tout cas ñun laa lii lañ amoon lu ci wax su dee mën nañoo dimbale ñu dugaat ñu dugaat te ñu xam ne ne ñun ñoo nekk dëgg la mën nañoo am ne dañoo am dañoo erreur tey mën naa am dañoo def erreur waaye beneen yoon suba su ko keneen defaate ñu ñu kii ko waaye nag comme tey nag premier jour la te en même temps nit ñi fi ñu jugee dafa sori su boobaa nag léegi nag lii leçon la pour ñëpp leçon la pour ñëpp tey nag su doon dañ ko affecté nit ñi tey suba gis ne ñoom def defaan nañ ñu xam ne lii élèves yi ñoo ko tey daaw defoon nañ ko Ibrahima Diouf daaw Ibrahima Diouf defoon nañ ko dañu yóbbu suñu téléphone yi président jury bi nañu jël leen seen téléphone yi yëpp ngeen teg ko ci kanam ñu jël yëpp teg ci kanam ba pare bàyyi noonu bañ pare dañu jëlaat suñu téléphone ñun ñëpp ñu def suñu poche loolu kon te nit ki su amoon intention tricher ba nga ko laajee téléphone du la ko jox wala ngeen ne ko jël leen seen téléphone ngeen teg ko ci kanam ñu jël ko teg ko ci kanam waaye ñun ñëpp kenn denc ci téléphone am ñun ñëpp dañoo jël suñu téléphone yi yóbbu ci kanam mu récupéré téléphone yi yóbbu